Moustapha Souran mu ngi juddu ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru sulet atu 1949 ca diwaanub Ndar Géej Souran di sët ci Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke ndax waajuram bu jigéen di soxna Bintu Mbacke doom la ci Mouhamadou Moustapha Mbacke di taaw ci Xaadimu Rasul doom la tamit ci masuran Souran nekk ab notable bi ñu ràññeewoon lool ci atu 1920 ci wàllum njàng moom fii ci université bu Ndakaaru ci la amee maîtrise am en droit public ci atu 1974 laata muy dem ca France ngir wéyal njàngom ci université bu Bordeaux na fa ay lijaasa yu bëri bokk na ci DEA droit public atum 1975 ci wàllub science politique atum ak doctorat en droit public ci atum ci atum ci la daal di li nga xamante ne moom agrégation en droit nekkoon jàngalekat ci université bu Ndakaaru Moustapha Soura nekkoon na tamit doyen de la faculté sciences juridiques diggante ak ca UCAD laata muy nekk recteur université bi ci boppam diggante ba mai 2001 ci lañ ko tabb mu daal di nekk jëriñ ju ñu dénk wàllu njàng mi ak njàngale mi poste bi nga xamante ne dina ko occupé ba keroog ba ñu koy tab ci bésu benn fan ci weeru octobre atum 2009 jëwriñ ju ñu dénk wàllub yoon ñeenti fan ci weeru décembre atum 2011 ci lañ ko tabb tamit jëwriñ ju ñu dénk wàllub l'armée bi ci diiru jaar-jaarom moom Souran jot na am ay raaya yu bëri bokk na ci commandeur de l'ordre national du mérite ci Sénégal grand officier de l'ordre national du mérite ca diwaanu France officier des palmes académiques ca France waaye tamit officier de l'ordre national du mérite ca Burkina Faso ca atum 2014 nag ci la ko njiitu réew mi Macky Sall ngir mu jiite commission nationale de la réforme foncière ci diiru jaar-jaaram yëpp ak ba muy nekk ci gouvernement bu maître Abdoulaye Wade moom Souran ko lim benn yoon ci ay scandale témoignage yi di fàttali ni dafa nekkoon nit bi nga xamante ne ku dëggu la gëm yàlla waaye tamit oyof lool professeur Souran Fatou nag ni ki demb ci hôpital principal bu Ndakaaru lakkoon lu toll ci juróom-ñaar fukki at ak benn